Euh, pandoo bi damay naan rek la voix de sans voix c'est la voix du peuple sénégalais gis nga Walfadjri Walfadjri dafa am problème ak homme politique sénégalais mooy seen hypocrisie politicien sénégalais ku ko gën a hypocrite dafa amul ndax ñoom yépp képp ku opposant Walfadjri fii moo mooy nekk sa kër kenn ci ñoom muy opposant Abdou Diouf yi ak opposant Ablaye Wade kenn ci ñoom Walfadjri fii moo doon nekk seen plateforme émission Walfadjri yi mu diinoo ak mu yeneen ak yeneen nest moo doon nekk seen plateforme waaye des bi ñu toogee rek commencé faagaagal Walfadjri yi parce que pour ñoom soo àndul ak ñoom da ngeen a mënuñu nangu ne Sénégal fii groupe de presse wala société civile war na mën a nekk neutre wala war na a impartial te neutralité ma amul neutralité amul de amul waaw gis nga ci bi fii benn kuréel rek moo fi neutre mooy croix rouge à part croix rouge amul neutralité. waaye impartialité mun na am impartialité mooy dëgg foo ko gisee nga wax ko waaw kon képp ku jullit muy musulman wala chrétien war nga mën a nekk impartial war nga mën a wax dëgg fi mu gisee kon arrestation Pape Ndiaye on a tous vu venir parce que après Pape Alé xamoon nañu ne ci Pape Ndiaye lañu jëm parce que bépp journaliste boo xam ne yaa ngi intéressé ci affaire judiciaire yi di enquêter di wax sénégalais loo xam ne bokkul ak li procureur di wax n'est-ce pas tu es collimateur du régime parce que ñi bëgg moom lépp lu ñu nas rek ñu fexe ba jàllale ko média yi média yi gëm ko gëm la ko askanu Sénégal kon bépp groupe de presse boo xam ne yaa ngi def say investigation n'est-ce pas di bëgg leeral askan wi ci am groupe de presse boobu wala journaliste boobu mu ngi demee immédiatement le ennemi numéro un. kon xamoon nañu ne après Pape Alé Niang ci Pape Ndiaye la ñuy jublu ba ci après Pape Pape de Kéwoulo il est temps de résister de résister te démocratie bi fi am Macky Sall liggéeyu ko. avant 2000 kan moo xamoon Macky Sall ci yéen avant 2000 kan moo xamoon kenn xamu ko woon avant 2000 koy xam di ko Abdoulaye Wade commencé di di tàccal ndombal tànk ba askan wi xam ko mu profité nekk président de la république kon les acquis démocratiques de ce pays n'est-ce pas war ñu nangu mu koy yàq de arrestation yi fi am na su booba kenn gisu ko woon ci jamono Abdoulaye Wade kenn gisu ko Guy Marius mu may naan y a plus de cent personnes yoo xam ne ñu ngi ci tey parce dañu wax seen xalaat dañu wax seen xalaat te seen xalaat boobu dafa neexul ak Macky Sall moo tax jàpp woon jàpp leen dugal leen ci biir kaso loolu dafa war a dañ dafa war a dañ dañu war a fexe ñu amul ragal amul tiit amul gannaaw suñu liberté suñu ak suñu yeneen ak suñu sañ-sañ war ñu nangu mukk benn régime ñu koy confisqué war ñu nangu ñu koy confisqué kon li ma leen di wax amul di amul ragal da ngeen di continuer n'est-ce pas di wax seen xalaat ci doxalinu réew mi soo leen gisee lu baax wax leen ko soo leen gisee lu bon wax leen ko bu leen kii bu leen ragal bu leen ragal waaw lépp nag ngeen def ko dans la non violence. ndax violence moom baaxul di nga tooñ koo xam ne xëy na yoonam nekkul ci li nga xam ne moom wala taxawee kon mun nañ def lépp n'est-ce pas dans la non violence et vraiment ñu wane suñu citoyenneté ñu wane si citoyenneté kon euh, waaw waaye facilement ñu wax ne Amnesty International est à mon côté tant que Pape euh, Pape Ndiaye mu ngi ci nañu taxaw tem seen seen seen seen seen seen wet. ñu libéré ko et la semaine prochaine maa ngi ko dem seeti suñu kaso bi parce que sama mouvement dañ ma sant ñu ne ma demal seeti ko ndax wax nekk ñeen condition la nekk waaw ba pare ñun déjà on a commis un avocat maître François Senghor ci bokk ci poolu avocat Pape Pape Ndiaye loolu dina tax na ñëw information première mai yoo xam ne moom a jiite suñu liggéey te déclaration bu ñu def dëmb te DG di ko évoqué déclaration boobu yëpp information yi am na ay information de première main si la station bu Pape Ndiaye maa koy exprimer suñu solidarité exprimer suñu solidarité au groupe Walfadjri di leen encouragé ci liggéey bu ñu def parce que encore une fois muy Cheikh Niass ñun ñëpp ñu liggéey ci Walfadjri bu porte très haut le flambeau laissez passer sur Lamine Niass jërëjëf.